rahim fasjud lii ak caqale la faraidul xusli faratay sangaay anniyatu mooy yéene inde suruci fa tàmbaliga wal fawru ak gaaw waddalku ak ragg wal umuumu ak matale yaram wax farataay cangaay cang farata nim ko limee fii ñeent la ba ca njëkk mooy yéene ba ca topp mooy gaaw gaaw nag nan ko daa rek li ci jublu rek mooy boo raxasee benn cër nga jàll ca ba ca topp te bañ koo dagg di def leneen ñetteel ba mooy ragg boo defee ndox mi dangay bomb te bañ raay ñeenteel ba mooy fépp fu ndox ma war a fa kon ñeenti yooyu mooy ñeenti farataay sangu wa sunnanuhu ay sunnaam xaslul yeddayni mooy raxas ñaari loxo ilal kuucayni ba ca tikku jaraya kal wuduy ni ki njàpp ma wal madd madatu ak gàllaxndiku wal istinsaaxu ak saraxndiku wal istinsaaru ak fiiru wa qasdu simaaxil usnayni ak raxas bën bën ñaari nopp ya wa huwa moom as suqubu bën as suqubatu mooy bën bën ba ab daaxilatu bay aji dugg fi raasi ca bopp ba sunna yi da koy wàññi juróom ba ca njëkk mooy raxas say loxo di tàmbalee jatu baaraam ba fi ngay takk montar ak gàllaxandiku ak saraxandiku ak fiiru ak raxas sa nopp bi boo ko wàññee juróom la loolu mooy juróomi sunnaay sangu farata wa amma safatul usni ndaal ndabal nopp la fa yajibu dana war xaslu saahiriha raxas bitim ba wa ak biiram ba nopp moom lépp boo sangu farata lépp koy raxas biir béeg danga ko war a raxas wa fadailuhu ay ngëneelam albidaayatu mooy tàmbalee bi xasli najaasati ca raxas sobe sa suma sakkari topp sakkara fa yen wii te muy yéene fa moom ma aada il wuduyi topp cëri njàpp ma maratan benn yoon nee na jàpp tamit sangu am na ay ngëneel ngëneel nag mooy loo xam ne ni boo ko defee sa tiyaaba day gën yokk ba ca njëkk nag mooy bala ngaa sangu farata fekkee am na sobe su toq ci yow nga njëkk koo dindi ba noppi door a tàmbalee sangu boo dindee sobe si ba noppi nag dangay ngay jukki bi wàcc ngu dikke ba ci sàkkara si ba koy raxas nga yéene foofu sangu farata yéene ji nga yéene ci sàkkara si nag ba tey ngëneel la kon raxas say loxo ñetti yoon daa di jukki jumbax bi ba ci bëti oom yi raxas foofu yëpp ak sàkkara si da nga yéene ci sàkkara si boo noppee da jàpp jàppum benn benn jàppum benn benn mooy boo daa jàpp ñett ka def waaye tey benn lépp benn nga koy def boo jàppee jàppum benn benn ba noppi bu dee sa bopp bi dafa sëq nga gis sa loxo yi jël ndax ubbi kala gi bu mu ubbeeku boo ko ubbee ba noppi nga raxas bopp bi ñetti yoon waaye bu dee dangaa wattu moom boo raxasee benn mu daj rek baax na waaye sopp na daal nga raxas bopp bi ñetti yoon boo bi ñetti nga raxas sa nopp ndeyjoor raxas sa nëpp càmmooy jàll ca dox ba raxas ko raxas sa wetu ndeyjoor ba ca bëtu wóomub ndeyjoor ba raxas sa wetu ba ca bëtu wóomub càmmooy ba delewaat ca tànkum ndeyjoor ba tàmbale ci wóoma ba ca dojoor ya dem ca tànkum càmmooñ ba tàmbale ci wóom ya ba ca dojoor ya raxas sa gannaaw raxas sa biir raxas sa dënn noonu càngaay loolu moo gën ci nii sangoo farata waaye bu wutun am ndox yéene fexe ba fépp daj tamit boobaa dina baax kon loolu dañ ko fay jaarale woon rek pour xamale waaye ni sangoo farata ñu dikkaat ci ngëneel yi summa ala jasadihi topp la gën a kawe ci yaram wa booy la sangu farata leen bu gënoon booy raxas téeri ngay tàmbalee la gën a kawe mujjee la gën a suufee ci misaal bu nee la booy wax wet gee nga tàmbalee ci kaw mu wàcc ci suuf wa tasliisu xasli raxsi ak ñetteel raxasu bopp ba wax naa ko léegi bopp bi raxas bi nga koy wax ñetti woon koo sopp waaye tamit ñett yi bu tooy tamit da ngay jàll ba mu tooy rek wa taqdimu saq jasadihi ak jiital bëtub yaramam wa al aymani badib ndeyjoor wa taqlilul maa ak néewal ndox ma alal aadaa i ca bokk na ci ngëneel li boo raxas say wat nga jiital gul ndeyjoor ga teg ci ku càmmañ ga bokk na ci ngëneel li nga néewal ndox mi bañ koo yàq ñii dañu rëy ñii tuuti kenn ku nga def layante yow te bañ a yàq ndox mi ak donte sax ci géej ngay sangoo farata waman na siya ku fàtte lum xatan digg bu tooyul mag ñi daa ko wax ndéenéer aw odduwan wala ab cër min xuslihi te càngaay la baadara na gaaw ilaa xaslihi jëm ci ak raxasam ayna tasakkurihi ci waxtu wam ko fàttalikoo walaw baada shaarin ak doonte ginnaaw weer la wa aadata mu baamu maa salla la mu julli woon qablahu ci ak njëkkam nee na koo xam ni daa sang bu noppi fàtte ab cër wala mu fàtte cër boo xam ne nii am na digg bu te nekk te tooyut maanaam cër bu la fàtte nga te ab digg bu tooyut wala jëmmi cër ba nga fàtte ba fàttalikoo rek gaawal dem raxas si cër boobee ak lu yàgg-yàgg da baamu la julli woon donte ay fan la sax da nga baamuwaat julli yépp wa in axarrahu njéem yéexee na ko baada yi ginnaaw bi mu ko fàttali ko batala yàqu na xusluhu càngaay la ginnaaw bi ko fàttalikoo nag da ngaa yéexe dem raxas si cër ba ba mu yàgg boobaa moom jëmmi cangaay la moo yàqu moom dangay dem sanguwaat fa in kaana njéem nekk na fi aadaa il wuddu i ca cëri njàpp ma wasaa dafahu te fiirantoog moom xaslul wuddu i raxasuk cëri njàpp ma aji sa ahu mu doy ko nee bu fekkee ba ngay sangu farata cër ba nga fàtte yàlla daa dogal mu bokk ci cëri njàpp ma moom ginnaaw ba nga sangu di jàpp waat fa raxasaale cër boobee fàtte woon ca jàngaay la te yàlla dogal bokk ci njàpp mi boo jàpp boo ko raxasee rek mu dee sëkk maanaam da ngay sangu da ngaa fàtte woon yàlla dogal cër boobee nga fàtte bokk ci yi ni cëri jàpp yi bu yàlla dogalee te bu yàlla dogalee ginnaaw ba nga jàppuwaat bu raxasee cër boobu rek mu lay sëkk faslun lii ak taqale la laa yaxillu du dagan lil junubi ñeel aji am janaba duxulul masjidi tabbi jàkka wala qiraatul quraani du caageenu jàng alxuraan illal ayata ndare aaya wa nahawha alu mel ni aaya li taawusi ngir musloo ko wa nahawihi ak yu demee noonu ku amee janaba moom jaar ca buntu bee jàll sax doo ko sañ jàng alxuraan tamit dañ koy tere danga koy tere sax lu may nga jàng benn aaya wala ñaari aaya musluu ko ak yu demee noonu rek dana lay may wala yajuusu du dagan li man ka nga xam ni laa yaqdiru du attan al maa i cim ndox al baadiri mais aji sedd an yaati e mu dikkal sawjatuhu soxnaam hatta yuidda ba mu waajale mooy préparé mag ñi ko hatta yu idda ba tey mu xaroo aalata jumtukaaya nee na xam ne nii dafa sedd ndoxam dafa am sedd daal maanaam ndoxam yaramam bu laalee ndoxam sedd rek day day gaañoo kooku bëgg nañ joteeg soxnaam mu ut ay jumtukaay ma nga xam ni joteeg soxnaa ba noppi ndox ma nuggal ndox ma man caa sangu farata waaw bala mu def dara rek na la jënd jumtukaay nga xam ne bu noppee day tàng ndox man saa sangu farata illa an yaxtalima ndara dafa jënd fala seet dara alay di ko war bu dee nag daa tëdd rek